fi dawee utali plage yi dafay yokk risque noyade yi meeru ville bu ndakaaru bëgg gën a artu kaaraangewu ñiy sangu tax na mu taxawal ab poste de secours ci ñaar fukk ak juróom benn plage yi nekk fii ci ndakaaru boole ci ab matériel jàppale leen ko matériel ba nag bokk na ca ay planche de natation gilet sauvetage ak ay buum yu ñu mën a xàjj géej gi fu mu war a yem Barthélemy Diaz daldi gunge nii maître nageurs yi ci seen liggéey. étant conscient xam nañ ne tere nit yi ñu sangu ci géej gi doonul lu yomb ci loolu ñu jël ndogal ngir surveiller plage yi nekk ci Dakar yëpp moo xam tere nañ ko moo xam terewuñu ko loolu moo tax ndogal bi ma njëkk a jël gannaaw bañ ma fale mooy recruter ci lu toll ci ñaar fukki maîtres nageurs. gannaaw ab concours boo xam ne amaloon nañ ko ngir renforcer effectif ñi nga xam ne ñooy surveiller plage yi jël nañ ndogal itam jox leen ay jumtukaay ngir gën leen yombal seen liggéey njëkk li ñu xayma ko ci juróom fukki million ci suñuy koppar. matériel moderne et précieux. d'un montant de plus de cinquante six millions de francs CFA. lu ñeel nag dem ci plage yi ba yenn heure yu guddi yi loolu maire bu ville Ndakaaru di sàkku ci waajur yi ñu gën a xool nekkinu xale yi. chers parents je vous invite à veiller sur nos enfants ils sont l'espoir de notre pays accompagnons-les autant que possible à la plage apprenons-leur la natation car malheureusement. la mu am mbégte loolu ci bi leen ndimbal njiitu association wu maître nageur sauveteur et surveillant des baignades bu Sénégal dal dinay sàkku it ci yeneen maire yi ñu def ni ko Barthélémy Dias defee ñeel wàllu kaaraange gi.